suñuy jaar-jaar daal ba su ko xaaritoon jar seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. waaye di ñaanal Maulana Baye Cheikh Omar Ndiour mi nga xamante ni moo ñu tëbb ba ñu doon li ñu doon. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàgg ak yokk ak wér ci darajaay sanga mu tedd mooy Cheikh mu saa si borom daaru di nuyuwaat ko siyaar mboolem koo xamante ne yaa ngi fi ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw jiital ci nuyoo boobu imaamu gox bi teg ci notable yi ñëw ba ci chef de quartier bi mu jottali ñu suñu nuyoo ci waa gox bi yëpp nag waaye di jaajëfalaat ñi yàlla jaral ba ñu roonu tànt bi jagoo ci ay gox yu wutee te fasanti dinañ ci tudd ay tur ndax ñu bari yëpp ñoo yeewee ko waaye ba tey jàmbar yaa ngi des ci bis bi te lii yombul ci cant ba waxtu wi te gaa yi yàkkamti wu kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax ah di jaajëfalaat ñoom soxna Bintu Jaañ ak soxna yi ñu nekkal ñoom ñëpp ndax su ma limee soxna Bintu Jaañ rek boole naa ci ñëpp nag su ma limee yaa Adama Cissé boole naa ci ñëpp nag kon yàlla na yàlla sàmm leen te aar leen ci seen taxawaay yu rafet yi ci pays yàlla bii ndax lii mooy tegtale ne Cheikh am na ku lépp loo xamante ni nit ñi am nañ ko ba di ko ndamoo ko tiitaroo Cheikh Moussa am na lu gën loola kon jërë ngeen jëfati di jaajëfal ñu taxawal bés bi may sanga Pa Cissé ànd ak góor yàlla yi nekk fii ci boori sow seen taxawaay rafet na seen liggéey rafet na ñi fi ñëw du man maa leen woo waaye xam naa ne yéen leen woo ndax da ngeen ko sëkk ak ñoom moo tax ñoom ñu wuy si leen tam nag kon damay wax ne lépp lu ngeen mënoon seen diggante ak ñoom na yokkute bañ a wàññeeku ngir ne képp koo bokkal pas-pas rawat na muy sa mbokkum jullit delluwaatal ci mbir ma innamal mu'minuna ikhwa waaye fa asli bayna ahwaakum nag naka jullit ñëpp ay mbokk lañu waaye na ngeen rafetal seen diggante rawat na góor yàlla ak morom ma nangulante bi moo waral diggante yu rafet yi kon nag yàlla yàlla barkeel leen seeni dërëm seeni ñaar dërëm seeni junni yi ngeen jël def ko ci bés bi defu leen ko fu naqar yàlla mais fu neex yàlla ngeen ko def yal na yàlla fulandi ko ba mu nekk ay millions et millions millions ci darajee Cheikh Moussa ndax xam naa ne góor yàlla la mu am jëmul fenn fudul ci yàlla moo tax bu ma ne góor yàlla trésor am jeu la day day day jëlee ci yàlla di dugalaat ci yàlla day jëlee ci yàlla di dugalaat ci yàlla kon yàlla na yàlla fulandi ko bu baax a baax a baax a baax di jaaja Cheikh Alain Tine mi nga xamante ne booba tey mu ngi ànd ak ñun ci bés bi tam bàyyi léppam ñëw di jaajëfal Cheikh Pape mi toog borom multidimension ndax fu ne lay waxee dimension bu ne lay waxee loo indi rek mu ànd ak ñëw ci loolu wax la ci xam-xam ba mu leer nañ fi mu nekk nii euh, li kaddu yu jub yëpp mu ngay fet fete cib dënnam. xam nañ ko bu baax a baax yàlla na yàlla yokk xam-xam bi moo tax ma ne Cheikh Moussa am na ku ne waaye Cheikh Lamine Sène jërëjëfati ndax bari na fi yoo fi indi xam naa ñi xamul ba te ñu ngi naan li mu indi lu mu doon lan la ci ñenn ñi xamul te fekke xam-xam la waaye foo jotewut rek jàppal ne yaa fa jotewut waaye xam-xam bi jote na fa mbokk mi ne na moom jotee fa moom su ko defee dina am lu ma laal tuuti borom rajo bi maa ngi la jégalu sa waxtu jot na maa ngi la jégalu maa ngi ma tuuti rek dina am lu ma laal tuuti ci li mu indi ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam weexutoon ñuulutoon amut bëñ xeesut xeereerut waa kooku day jaaxal koo xamante ni da nga jàppee Muhammad mi nga xamante ni mooy Muhammad historique mu nekk koo xamante ni dafa am wayjur wu góor am wayjur wu mooy tudd Muhammad ibnu Abda Abdullah nag moom nag daa jékki Muhammad ibnu Abdullah mu ngi ci Muhammad rasul rasulullahi la Muhammad mii kat du bàyyi kenn ci yéen yàlla ko wax maa kaana Muhammadu abba ahadin min rijalin walakin rasulullahi xaatimi nabi wa imaamul aywa te Muhammad am na ay njaboot Fatimata bintu du njabootam la kon léegi kon ba léegi fi mu waxee nekkul ci maanaam ci jëmm ji lay waxee mais ca leer ga lay waxee su defee gars yi bari bu ñuy wax fa la waxee naan Mouhamad nangam Mouhamad nangam Mouhamad nangam dafa am lu ñu tuddee le message et le messager Mouhamad ibnu Abdallah c'était le message mais le message mooy li mu porté woon te doon ko doxal te jamono ku mu tàbbi ci yow ngi mucc àdduna mucc àllaaxira moo tax sànq fa la waxee ni. maanaam message bi nga xamante ne maanaam mooy tukkal mooy mooy doxal jamono yàlla ci borom jamono lay atteewoo boo demee ci tijaan ga bu ñu waxee ne maam Maodo Malick may borom jamono wala boo xalifa Tiwaanu tey may borom jamono ndax murid la ñuy nangu déedéet bu ñu nee sëñ Muntaxa may borom jamono ndax tijaan la ñuy nangu déedéet bu ñu nee xalifa Laayeen may borom jamono. ndax ñaseen yi la ñuy nangoo déedéet buñ ne xalifam ñaseen may borom jamono ndax xaadir yi la ñuy nangu déedéet moo tax ma ne kenn du ñoom ci ñoom du borom jamono ndax borom jamono du jëmm ji dox di dem nii waaye leer la Cheikh Moussa mi ñuy wax ne mooy borom jamono denc nañ ko depuis 1994 kon bu doon jëmmi Cheikh Moussa da doon daagu biir daaru kon jamono moom raaf na jeex na. waaye la nekkoon tib dënnam ba la nekkoon leeram ga mooy la prophétie loolu moom ba keroog buftu gi wal loolu moom di fi mos a jógee saa bu jamono yàqoo moom la ñuy utali mu defar jamono moo tax yàlla laa tase bu dëxra inna dëxra huwa laahu nag bu leen ŋàññi jamono parce que man yàlla man maay jamono leer googu nag moo feeñ ci tarixatu tijaan leer googu moo feeñ ci tarixatul murit leer googu moo feeñ ci xaadir leer googu moo feeñ ci ñaseen leer googu moo feeñ fu mu ci mënte doon ba ci le mi nga xamante ne moom la doon wax léegi moom sëñ Lamine Sène benn leer gi képp la du ñaari du ñetti waaye nuñ ki oowee ci turi yi ñoo bari tubaab bi lan la ñu jàngaloon y a des mots qui ne s'écrivent pas de la même façon mais qui signifient la même comment on les appelle des homonymes ci wolof su mu koy leeral dama naan cin mooy kaadir kaadir mooy cin boo demee ci waa Ndar dañuy wax ne kaadir mbaa ñenn ñi mais am na ñuy wax cin nu ñuy bindee cin ak nu ñuy bindee kaadir bokkut waaye benn jëmm képp lay tegtale Sëriñ Tuubaa mi dégg yàlla mi mu ne ëllëg yemal xiyaamatin akbar ku gis yàlla doo ma gis waaye ko ma njëkk gis doo gis doo gis yàlla xanaa la koy layal mooy lan mooy dem ma ayati mi ayati mi ayati laahi nag sama dund moom Sëriñ Tuubaa nee na tàmpe na ak dund yàlla yow doomu aadama bi. liñ fi wax bu mu la jaaxal dellul ci inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dañoo jógee ci yàlla te war a dellu ci ci yàlla nit ki day dem ba sëyaat jeex tàkk ci biir yàlla glace lu mu doonoon lan moo ko def glace frigo bi moo ko def glace nga génnaat bu la nee duma glace ne ko may ma tuuti ba xam ndax du ma ndox may ne ko may ma tuuti ba xam ndax di nga doon ndox mbaa doo doon ndox teg ko ci naaj bi léegi lu muy doonaat te pourtant ay jamono boo ko jëlee dóor ko ci ci jee mën na tojjee ba ca ba muy nekk glace kon tur dafa am fu mu dugg bi mu duggee foofu tur dafa changé melokaan ba changé mu am beneen tur bu bees bu dul ndox waaye mu tudd glace yow doomu aadama yow dafa am foo nekkoon démb. sëñ Lamine wax na la ko léegi nee na la depuis asamaan sànq existe ñun ñu ngi doon exister mais yow yaa ngi soogaay reconnaître sa existence depuis ta naissance mais existé yow mi juddu 1974 73 foo nekkoon boo gane àdduna ba pare yàlla war leen ni maanaam def ngeen lii seen jëf jaa ngi nii waaye nag des na man sama loxo man yàlla <laughs> su ci defut ruu looy dégg diw dafa amoon doomaay doom ji dafa dafa dellu wala liir bi indaalewul mais bakkan bi ma lesoon bakkan bi ndax liir bi di ko indaale dina indaale kon du lii may bakkan lii noyyekaay la waaye du bakkan lañ tax ñu naan bakkan indaale ko léegi nañu woo yaajam ndax ndax mën naa def bakkan ci liir bi wala déet nañ woo baaji ndax mën naa def bakkan ci liir bi yaay ji du ko mën baay ji du ko mën nijaay ji di ko mën kenn du ko ci mën nag ku dul ki nga xam ne mooy borom jaam ñi moo tax olof njaay ne bu lëg lekkee alom na ko gërëmee coy damay wax ne kenn ku ne ci ñun cëru yàlla bi ci yow moo gën a am valeur cëru doomu aadama ci yow boo jëree cëru yàlla bi jaay ko ngir jëndee ko cër doomu aadama yi boo la gàddi nga perte te sa cër si diggante ak doomu yi fii la yem ci àdduna ànd la nit bu ma xëy wàcc liggéey fooy mu jéeg moom jooy rek du yàgg dara nga noppi du yàgg dara ba mujj sax nga fàtt ko moom bu fekkee ni ko def la tere woon jaamu yàlla ndax perte nga wala perte wulo soo waa perte nga moo tax kon dama ne ñetti diggante la sa diggante ak sa bopp yow doomu adama bi moo tax ngay sol yére moo tax ngay defar sa jëmm ji moo tax ngay jurgóotu moo tax ngay toiletu waaye sa diggante ak sa morom ak ku mën a doon nag mooy sa diggante doomu aadama ci li war sa diggante ak moom mu des nag sa diggante yow ak sa borom ñaari diggante yi day jeex ndax sa diggante ak sa bopp yow mi nga xamante ne yaa daan ci seetu bi jàkkaarloo seete bi di defar sa kanam ni fi baax na fii baaxul bu wàcc liggéey amee ndax di nga taxaw di kanam seetu bi kon sa diggante ak sa bopp jeex na fin mission la sa diggante ak sa morom jëflante bi nga daan jëflante ak moom bu dul ko ko ak jëmm ji diggante bi jeex na waaye sa diggante ak sa borom nag adduna la ak allah ak alaxira su fekkente nag yóbbaale waroo li nga xamante ne mooy koomam alaxira bu ëllëgaa da nga fay fande liir bi gane àdduna lan la indaale suukar wala ruy lu muy indaale am na ñamam nourriture bi muy dund fii liir bi da koy indaale fan la ko yàlla branché ca weenu yaay ji ko yàlla branché liir bi da juddul tey nga jox ko ween te laata yaay ji laata liir bi gane àdduna mën na am boo boo bu sexe ween dara du génn mu gënee àdduna rek indaale ñamam nga jox ko wenn mu commencé di nàmp bu nàmpee deret ak soow jege nañu lool waaye duñu jaxa duñu jaxa soow deret du génn waaye soow mooy génn l'école ba lu ñu doon jàngal la lait maternel est un aliment complet boobu amul lu ci nekkut lépp loo xamante ni maanaam ferñeent buy jëriñ doomu adama mu ci meew wéjur wu jigéen xale bi da ci dox da ci dox da ci dox dem ba jëmmi jamono nga gis mu commencé feeñal ñaari ci kaw ñaari ci ci suuf bu commencé feeñal ñaar ci kaw ñaar ci suuf jamono jooju bu ko yaayoo joxee ween xale bi nu muy def day commencé képp yaay ji yaay ji nu muy def tar ngay dégg bukk ko ne tar baa ji ko waaye lii lu mën kii lu mën a def mu ne ko waaye kii dafa soxor ma koy nàmpal mu may mu may matt bëñ lu ko tax a jóg matt ko tax a jox yàlla du jum du jawale ko xariñ la moo tax bi xale bi gënee àdduna mënoon na ko indaale ak ay bëñam waaye dafa téye bëñ ya ba yenn moment yi ndax soxlaagu ko mu téye ko ne saan nag moo tax xale bi bu demee ba toll ci feeñal ci liggéey boo xamante ne mënoon naa nekk ci biir waajur mu jigéen wa ndax ba yàlla saxal loxo di xëcc loxo muy génn di tab di ci poosé ay we xale bi ndax yëg na ko yëgu ko de kon jamono yooju bu ci mont yoon bëñ kenn du wax ne sama xale yi bi fay na yaram mi dafay dafay tàng moo tax seetlu leen ci mu di juree muus boo nekkee ci koñ maanaam muus nga gis muus bu ndaw bi muus bi di ñeew ñeewi ñeew ñeew gu dul jeex ñeew ko gu dul jeex xool ko day feeñal feeñal gu métti ci la nekk nag bañ nekkee buy sax ci doomu aadama day métti xoolal kon liggéey bi nga xamante ne yàlla daa bàyyi ba nga génn wajur wu jigéen mosoo la ko defal nag liggéey boobu xoolal ni mu méttee ci ki nga xamante ne ci moom lay feeñ waaye te yoo au fur et à mesure xale bi di commencé réeree ki nga xamante ne moo di boromam nag ndax ci yooyu jamono léegi nga commencé ko di ko di ko leelal nga commencé di ko saxal muy tàkkamtiku léeg-léeg nga jël banaana jox ko léeg-léeg nga jël nen jox ko xale bi commencé xam yu mel noonu caf ka yeewu daal di caf ka daal yeewu ca ca xale bi ba léeg-léeg bu gisee dara sax mu ngëg si muy yoo muy yóotu te seet leen xale lu mu yóotu fan la ko jëmee ci tànk ak saa ci gémmuñ ga moo xam ndax ngeen baal ma moo xam ndax ay ginaar ko ginaar la bu ko faree fu mu ko jëmee allahu akbar ci gémmuñ gi képp la jëmee xamul dara lu dul gémmuñ gi ki la xam moom doomu moom moom tu tànk bi parce que dafa am lu yeewu ca ca làmmiñ ba mu doon nelaw moo tax yéen soxna yi ngeen baal ma foofu weeru koor dañ lay wax ne bu fekkee da nga woor tey togg may leen la nga ñam ci li waaye noo koy ñamee làmmiñ xoolal làmmuñ élément bu tuuti boobu noonu moom làmmiñ la jëmm ji yëpp moom lay yónni ni ko demal xoolal ma ndax saf na xorom mbaa saful boo jëlee kaat yi ci kudulus bi nga dugal ko ci biir ñeex bi teg ko ci loxo sa loxo bi nooy def dangay daal dem nii ba pare nga xool nga mel ko xool ci kaw nga ne teg tekkaaral boobu maanaam yaa ngi ko yónnee nekkoon na saf na wala wala saful ci élément bu ndaw bii lu mu tut tut lu mu tuutee nii élément bu ndaw bii mu diggante boobu lu mu gaaw gaaw gaaw tas na ko fu mu war a tas ba pare ba xam na fu mu war a jël waaye nag sariya dafa la foofu nag waaye nag soo mosee ba xam ne mu ne fa mën na nga jàll na bu yàgg barki borom daaro ndax léeg caf ga ba sar na bu yàgg nag waaye dalaa dimbali ndax bu la defalu loolu kon mënoo togg togg xamante ni mën naa nga togg togg bu ëpp xorom mbaa togg bu saful xorom moo tax mu may la loola kon loolu lépp li tax ñu indi ko ñu won leen maanaam degré doomu aadama ni nga xamante ne suñu borom noonu la lay indee di la bajang di la bajang ba nga dem ba commencé màgg moo tax bu xale bi màggee ba ci kanam ñun ñëpp jaar nañ ci day fokk bëñ ci kanam nu muy def muy yan bëñ nun tuddee dents de lait les dents de lait comme le lait c'est un aliment complet te la lait ñamu àjjana la moo tax léegi danga yi nga xamante ne ñoo doon jonjontee ak bëñ yi bëñ yooyu yàlla ko bëñ yooyu man soxlaatuma ko xëy benn bés nga gis mu jàll ñu ne ah da nga jaal ñun lay ndax da nga jaarul fii ana kan moo fi jaalut ñun ñëpp jaar nañ ci ci jaal bi parce que dent de lait yi la yàlla ba mu set wecc teg ko fële soog la indil yeneen dent yoo xamante ni mosuñoo laal weenu wayjur wala boog mosuñu laal soowu soowu wayjur su ko defee kon yàlla fii lay jaara yoon ba nga dem ba màgg nag yàlla réer la mër nga commencé nag. yaa ayyatuha nafsu al-mutma'inna irji'i ilaa rabbiki raadiyatan mardiyatan fa duxuli fii ibaadi wa duxuli jannat yow borom bakkan bu dal bi di tey dëppal jëlu si ci yàlla ku ñu dëppal jëlu boobu da ngaa wane gee xakk saa fan la wane yàlla fan dafa wane yàlla ginnaaw ca ba mu commencé jaxasoog addu adduna ba tout tànk bi boo meree yaayam moom nee na dafa lay dafa lay meree te bi mu mënoon naa mënoon ngaa xulóog yaay ji te yoonam du ci moo tax boo ko tiimee lakk français mu ree boo ko tiimee ne ko bébé comment ça va mu ree xale bi noonu def mbaa si jàmm mu ree nga lakk anglais mu ree parce que xale bi amul lakk bu mu dee bu mu déggul léegi lan moo ko déggaloo ke ci biiram moo ko déggaloo te mooy ki wax ki la Lamine wax ne a nax nu akar bi ilayhi min xablil yàlla moo dégg lakk yépp nag te yàlla fees ci moom del moo tax ñu tuddee ko léebi bara atu minallaahi wa rasuulihi ilaa lazina ahdul minal mushrikiin leetar bu tukkee ci yàlla ba leetar la xale bi leetar la boo xamante ni dañ ko war a liir waaye leetar boobu ku ñu gindiwul ci yàlla mënul liir leetar boobu moo tax olof mi dëgg yàlla mënul du liir waaye du du du liir bi waaye lii ñu ne nga liir ko Seex Lamin wax na la ko looy liir ci moom tànk yaa ko tuddee tànk français bi tuddee ko jambe mais nag kon la la tudd du tànk du jambe waaye nag li mu doon marque baa ngi ci marqué te ñi am gis yàlla gis nañu ma marque bi marque boobu nag moo fees jëmmi doomu aadama fees del del del del del del loolu taxoon Serigne Touba ser ser Serigne Touba xool seet ba yàgg mu ne ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ku la gis ku ne dem aj dem dem aljana ku la gis texe gis texe boobu nekkul da nga gis jëmmi Serigne Fall bu ñu gis texe dafa am lu yàlla dëxëñ ci moom ma ne loolu sees bi ku gis ku ne dem àjjana mais lan mooy sees bi seexla mi wax na ko la ca sees ba moo ne ci xiin gi la ca xiin gii moo ne ci yow looloon ne ci sa wajuru góor looloo ne ci sa wajuru jigéen looloon ne ci baas bi fépp koo xool ci xaalam bi loolu ngay jàkkaar moo tax Serigne Touba bi nga ci gindee la wax na bi ma xoolee sama kanam jàkkaarloo yàlla ma xool gëstu sama ginnaaw jàkkaarloo yàlla xool sama najoor jàkkaarloo yàlla xool sama càmmoñ jàkkaarloo yàlla sëgg sëgg jàkkaarloo laa xam ne turub Ahmadou Bamba biñ may wooyee du sama du sama tur boobu jéggi na maqaama Ahmadou Ahmadou Bamba boobu nit nekkatu fa wala boog jëmmi doomu aadama nekkatu nekkatu fa kon bu ñu bëggee xam nan la ak la dañuy delluwaat ci li nga xamante ne mooy lu yàlla woo te mooy dellu ci yàlla gars yi wax nañ ko sànq crise des valeur crise des valeurs gars yi dañ bu commencé perdre dañ ko commencé ñàkk. te mboolem koo xamante ni yaa ngi ñàkk crise yaa ngi ñàkk valeur yi nga xamante ni la mag ji porté woon boo la gàddu baax ci yow am na benn récitation boo xamante ni moom lay wax mooy le laboureur et ses ans et ses enfants un riche laboureur sentant sa fii prochaine fit venir ses enfants le par la sans sans témoin gardez-vous le dit-il de nos trésors qui nous ont légués par nos ancêtres un trésor est cassé dedans, mais je ne sais pas l'endroit où il est. Fouillez, bêchez, creusez, ne laissez nulle part. la main passe est, un peu de courage vous le fera tout, vous le, vous le trouvez. moo tax moo tax ma ne du du du laboureur bi nga xamante ne mooy nekk ci tool bi tool yi ak tracteur bi le laboureur et ses enfants dafa am ko xamante ne xol yi lay labourer pour jëmbati yàlla. Serigne Touba était un laboureur Mamadou Malick était un laboureur Baye Niass était un laboureur aujourd'hui c'est Cheikh Moussa Cissé Ndiambé borom daaru mooy labouré xol jaam yàlla yi te xol bu mu labouré jëmbat ci yàlla xol boobu bu ci yàlla saxee garab moom moom garab ga ciy meññ mooy garab ga nga daan naan ngeen baal ma ci li may bëgg wax ne garab guy meññ dërëm ku fa jaar da ngay yee da ngay yendu garab guy tàbbi dërëm ku fa jaar ndax doo yendu parce que da nga yendoo di for rek parce que ñëpp bëgg dërëm garabam Cheikh Moussa bi mooy leeru yàlla gu tàbbi ci doomu aadama dangay dem ba leer gi moo lay gënal lu mu mënta doon loo am jox leer gi parce que leer gi moo la jox lépp nag kon li mu wax dëgg ci ay folklore folklore yi xew dëgg la day deñ te ka ngay dindi mooy Cheikh Moussa Cissé njàmburam daaru moo tax wax na ko sànq mu moom la messi yow la yow la man la kee la kee la kee la le messi makaama la boo xamante ne Cheikh Moussa moom moo ko wàccee mu jaar ci moom mu tasaaro ci biir xalam bi moo tax bu ñu amatoon Cheikh Moussa fu ñu jëm safara fa lañ doon jëm ñun ñëpp parce que Serigne Touba kenn ompale wul ni Serigne Touba daa wootee ci yàlla xam yàlla àgg ci yàlla ak gis yàlla borom jaam ñi tey ñu dem ba mel ne gis yàlla daa jeex ci yoon wi ñu dem ba mel ne xam yàlla amatul ba boo nekkee di wax xam yàlla di wax gis yàlla ñu la yàlla kenn du ko xam yàlla kenn mënu egg ci moom nag ku yeggul ci yàlla fooy yegg. ku xamul yàlla looy xam ku gisul yàlla tam looy gis moo tax ma ne lu waaye gis te gisul yàlla dese na lu mu a gis fu waay àgg te àggul ci yàlla dese nga fa war a àgg lu waay xam te xamoo yàlla xamagoo tuus xam ba xam jeex xam yàlla ci gën agg bi ci àgg yi muy àgg ci yàlla te jàmb te àgg ci yàlla sar ser fa bu waxoon ne naa rëkk ci bamba mbaa ma ma rëkk ci yàlla jamono ji nit ñaa ngi ne rëkk ci sëriñ si te sëriñ si du rëkk ci ci yàlla te sëriñ Tuubaa ku ma rëkk ci moom mun la rëkk ci ci yàlla borom jaam ñi kon naxee yaa ngi am dañuy rëkk wala wala ñuy rëkkaatee safar nag kon da ngay rëkk moom ñoom ñu rëkk la moo tax wolof doon ñu lebu naan bu for yombee sëgg day léegi nag dama ne sëgg jafe na mais for moo yoo moo yombut sëgg jafe sëgg yomb na kon mais for moo yombut xamul tax for a jafe parce que sëgg yomb na mooy foo dem nit ñaa ngi fa sëgg di jébbalu foo dem nit ñaa ngi fa di jébbalu waaye nag jafe na koo gis ku la xam naa yàlla àgg naa ci yàlla gis naa yàlla borom jaam ñi moo tax Cheikh Moussa yàlla yónniwu ko ci tarixa Cheikh Moussa yàlla yónniwu ko ci aw kër yónni ko ci dara da koo yónni ci lan li mu wax yonent bi wa maa arsalnaaka ilaa kaafatan li naas wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina Cheikh Moussa yàlla da koo yónni ci mboolem doomu aadama yi te wax ko ku yàlla bind amel naa la sooku soo ko yëgee ak soo ko soo waaye njëriñ la seen Moussa amal lan la lan la ndax oto la déedéet kër la déedéet ndax xaalis la déedéet seen Moussa amelu loolu yëpp loolu sa wërsëg ci boppam moom ma la ko amel te lu mu yàgg yàgg dinañu sew nag waaye li la seen Moussa amel leen képp la ma mooy xam yàlla àgg ci yàlla gis yàlla borom jaam ñi la ci des nag sa digganteeg moom lay doon parce que bu defee li ko war sa diggante ak yow des na ci yow nag nga def li la war sa diggante ak moom muy fajjale kóllëre bi bi sax li mu seen doon wax ni nañ fonk kilifa yi ku toll na yàlla nga réere ku mër maanaam nga jaar ci lu ne def ci lu ne ngir bëgg am yàlla munoo fexe ba xam yàlla lu ne nga dakk munoo fexe ba xam yàlla yàlla boole la benn jëm ju la jàpp yóbbu la ci yàlla ba sa xam yàlla sikki woo ko mo leer la nañ nga bëgg jël nag loo xamante ne safaan ba ba ko dak ci ki nga xamante ne moo la tarbiya ci yoon wi nag alkande ngoog yàqoo ngoog nag moo tax kon nañ fonk kilifa yi gën nga fonk kilifa dafa am màkkaama yoo xamante ci yàlla du caa gën liggéey moo la ko fi moo la fa yóbbu mooy mahabbatu cheikhul murabbi sopp gi ngay sopp sëriñ bi sopp gi ngay fonk gi fonk moo la yóbbu ci yeneen màkkaama yi ci loo xamante ne du lay du lay moo tax ku bëgg a xam fan la la yàlla toll xoola yow foo toll yàlla waaye fi nga toll yàlla mooy fan la figi nga toll sa kilifa suuf ngi nii amul kenn kuy taxaw ne suuf see ma gën ci yàlla amul kenn kuy taxaw ne asamaan see ma gën ci yàlla amul kenn kuy taxaw ne garab gi ma gën ci yàlla nit ni mooy taxaw solo loo solo doon nga xamul dara moo xam dara nga si sukk ci ronam mu wan la yàlla ba mu leer ci yow nañ kon nag. Cheikh Lamine Sène jërëjëfati leer na nañ jërë ngeen jëf Cheikh Sadio ñu leen di biggal baax baax gis nañu teewaayu waa daara ji yëpp seen mobilisation ñoo teew lépp mate na macha allah Cheikh Pape Diop Pape Dia jërëjëf macha allah bu alamina yàlla ñu yàlla barkeel yi ñëpp soxna itam ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax ndax lii itam dafay am solo dafa am benn góor yàlla bu judd sëñ Mbaye Seck day faral di wax ne bu dee ay paa la ñuy jaay Cheikh a am na ay paa. bu fekkente ne ay jongama Cheikh Moussa am na ay jongama bu fekkee maanaam ñoo xamante ne ay sën la Cheikh Moussa am na ay sën kon Cheikh Moussa lan la ñàkk lan la ñàkk ñàkku dara am na lépp nag moo tax kon yu mel ni saa bu amee dafay am solo ci góor yàlla luy jàppoon ñu bàyyi ko dem tee dem tee ji loolu mooy liggéey bi nag Cheikh Moussa lan la wax yéen a bokki kaas yéen a bokki mbalka yéen a bokki baraada kaas bu ci waay naan sa morom naan na ko dimbalanti leen yërëmanti leen lu waay tene sa morom nga dimbale ko te yàlla tax te bañ ko woon ci doole xanaa lii mooy dëgg kon nag jërë ngeen jëf bëgg nañu kontaan nañu xool sedd bu baax a baax ñi doon organiser ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla gën leen koo mun loo borom rajo bi tam ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk sama kaama yàlla yokk sa daraja te lii yàlla doon ba doon rajo boo xamante ne rajo bu àdduna bi ñëppee dégg la yàlla am na ko mun na ko yàlla na ko yaa def gis nañu maanaam sa waxtu jot na waaye booba tey yaa ngi ne teg di woon a yar ak teggin Sëriñ Tuubaa waxoon na ko sama kër gi ku fi bàyyi yar ak teggin yóbbuloo dara waaye képp kuy bàyyi yar ak teggin mu ne bàyyiwuloo fa bàyyiwuloo fa dara. suñuy jaar jaar daal dañu xam-xam. danaa wax ne su ko xaaritoon jar danaa ko am. seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.